bu ñu bind turam du ñu bëggal borom. Faatumata bintu Asadin. keroog bi mu génnee àddina nabi dañuy roos biir bàmmeel bi. diir daal di jugaat. Mm. ne gaay ko. ñu suul ko ba noppi si namor ne ko lu xew. Mm. nabi ne ko bi may dugg ci bàmmeel bi suuf yëg na ni maa dugg. mais bi may génn yëguma du am droit tañ ci ndaw si. lépp moo moo ma yar bi ma amee huit ans ba keroog yàlla di ma yónni buy sang man lay njëkk a sang buy jox lekk man lay njëkk a jox mm. a